سيدنا ومولانا محمد أصدق القائلين القائل الطاعون بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تثبتوا alayha rawahu imaamul buxaari wa ala alihi wa sahabatihi tayyibin tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew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 ci mbas mu rëy mii lëmbee jamono mbërëm yàlla mii mu hebal ci ay jaamam mu ñëw daan ñiñ foogoon ne ñooy champion wu jamono mbërëm yàlla mii tuutee tuuti ba bët munu koo gis di kenn ci ay soldaaram ñëw daane lottal ñi ñu jàppoon ne ñooy champion wu jamono foogoon ne ñooy champion ci xam-xam yàlla sànni leen benn message buñ boo xam ne nii ba léegi mënuñ koo trouver ñi ñu foogoon ne ñooy champion ci am-am la am yëpp ñu ngi ko fay mujj sotti ba yuuxu ku leen di sàkku ndimbal muy corona bi nga xam ne dafa lëmbee àdduna moom laa fas yéene waxtaan ak yéen ci ana lan moo ko sabab waaye tamit ah, ana lan moo ko fi mën a jëlee di saafaraam ndax yonentoo wax ne amul benn jàngoro gi yàllay wàccee lu dul ba wàcce na la koy saafara ku ko xam-xam na ko ku ko réere réere na ko waaye corona bi jàngoro la ju mag bu ñu dal danaa leen wax lu ko sabab te nag képp ku xam sa jàngoro rek da nga xam sa saafara jàngoro ju mën a doon bu weero rek bu la yàlla dimbalee mën naa wér jàngoro ji nag dal ñu nañ bokk càmbar fexe xam lan moo ñu ko teg su boobaa nag ñun ñëpp buñ bokkee tamit gëstu danañ xam suñu saafara comme xam nañu suñu jàngoro mu mel ni jàngoro ji bu la neexee nga tuddee ko taaxuun taaxuun nag boo demee ci lisaanul arab dafa ne mooy feebar bu matale moom ak wabaawu yewuñu wabaawu mooy feebar boo xam ne dafa ñëw yàq climat bi ba mënatuñ koo noyyi niñ ko daan noyee feebar nag bu ñëwee matale waaye yàqul climat ñu tuddee ko taawun bu feebar bi ñëwee yàq climat bi ba jëmm ya di ko yëg ci ak tayal jëmm ya di ko yëg ci ak diis environnement bi yëpp yàqu ñu tuddee ko alwabaaw boobu taarif boo demee ci lisaanul arab noonu la ko waxee lisaanul arab dafa ne attaawunu lugatan jaa fi lisaani al arab annahu al maradu al aam wal wabaawu alladi yufsidu lahu al hawa moom noonu la ko gëmee waaye taarif bi nag boo ko seetee daal xayru daqiq wa hada taarif xayru daqiq nekkul daal lu sew te duwut tamit lu wér waaye li wér dëgg dëgg ci taarif ba mooy li ñëw ci al mu'jam moom dafa wax ne daa'un wa ramyun wa baa'iyun noonu la taarifee taaxun mu ne jàngoro la aw saan la wu yàlla sànni woo xam ne ko jug mbas la wu dal ca kaw ñamu dal la ko waxee boo wal lii dëgëral wax jooju nag taarif bi lee mooy li imaamu Nawawi tudd mu ne taaxuun xuruuxun taxruju fi ljasadi fa takunu fi l abaati awil marafiqi awil aydi awil asaabici wa saairi lbadan wa yakunu maahu waramun wa alamun sadidun moom imaamu nawawiyu dafa ne taaxun daal feebar la buy bijj ay góom ci aw yaram bu ko bijjee tamit nag góom yooya mën naa nekk ci ay poqataan walla mu nekk ci say sofe-sofe wala mu nekk ci say loxo wala mu nekk ci say baaraam wala ci mbooleem ci sa jëmm ji waaye sax mën naa sabab ak néwéeg sa yaram ak ak méttit méttit wa nag fu mën a nekk sa yaram rawatina ci bopp kooku moom la ñu tuddee taaxum moom imaamu Nawawi ci taarif bi mu def ko mu ngi sukkandiku hadis bi yonantu bi wax sayyidatuna Aïcha génnee ko ci yonantu bi ba mu leen waxee ne sama xeet wi ñaarale mi jeexal ak taanu wa taanu xeet yi yëpp ñu ngi jeexee ci ñi dëbbu leen ci ay ngànnaay danañ jeex ci ngànnaay ak ci feebaru peste ba ne ngànnaay na paaka dugg jaasi dugg waaye tamit armée yu bees yi gaa yi muy xeeti bomb yi ak fetal yi ak lépp lu mën a faagaagal nit rek dugg na ci taaxnu te ku ne xam na ne lii dee ci xeetu yonent bi par at ñii dañoo dee ci jaasi ñii dee tabaarakallaahu ci paaka ñii deexee ci fetal ñii deexee ci ay oto yoo xam ne dañoo accident ñii deexee ci ay bomb yu ñu sànni benn ñu sànni ko mu dal leen mbaa ñu sànni ko ñu noyyi ko mu am ak jeexital loolu la ca dee kenn xamut lu mu toll waaye li dee ci xeet wi ci wàllu peste feebar boo xam ne dafay matale kenn xamul ni mu toll moo tax da ko yonent bi waxee sayyidatuna Aïcha laaj ko ne ko ak taanu de qad arafnaahu waaye fa ma taaxoon taaxoon lañ xam yonent bi ne ko ah taaxoon may laaj xaddatun ka xaddatil bairi yaxruju wal ibti moom daal ay taab la yu xaw a mel ni euh, jagañu nag ay ay taab yu mel ni taabu gëlëm yi daal ko defee di feeñ ci euh, sa sa ak di feeñ tamit ci tabaarakallaahu say euh, say say say taarif boobu la imaamu Nawawi jël moo tax moom mu firee ko noonu waaye ala kulli haal boo jëlee beneen taarif taawun feebar la bu ñu jagleel tabaarakallaahu boo xam ne dañ koo jagleel aw nit mu nekk loo xam ne dafa ko ràññaloo wabaa nag bu teg nag moom moo tax ibnul qayyim dafay wax ne diggante wabaa ak taaxun dox na ci seen diggante ak ak matale ak ak xusuus boo jëlee taaxun moo gën a matale wabaa waaye wabaa moo gën a jagoo moo tax mu ne ana bayna taa ana baynal wabai wa taauni umumun wa xusuusun fa kullu taaxunin wabaun wa laysa kullu wabain taawun loolu la gëm ibnul qayyim loolu la gëm kon nag taawun a ngoog di feebar boo xam ne dafa ñëw matele aw xeet tabaarakallaahu di ca faagaagal lu bëree bëree bëree bëree bëree bëree lu bëree bëri la cay ñëw di ca rey moo tax daal feebar bi gane sunu gane si àdduna bi ñëpp ragal ko xam naa niñ ko ragalee buñ ko ragalee woon yàlla bala ñoo dee ñun ñëpp nekk ay wëliyu yàlla niñ ko ragalee buñ ko ragalee woon yàlla bala ñoo dee ñun ñëpp danañ ci suñ loosement ya ca aljana loo ko ragal nag ëpp na ko ndax comme feebaram ngaana rek la yonent bi ne soo gisee ku ko xam daw ko ni ngay dawee gaynde loolu la kon nag boo gisee ko xamee feebaru euh, euh, corona bi boo yeboo daw ko rek mu gën a xiir li ngay dawee gaynde ndax moo gën a gaaw a wàllaate ni feebaru ngaana di wallaate yonentu bi nag ci jël matukaayam ci taawun bile bañ ko ko laajee mu ne màndargaam mbugal la mu yàlla di nattoo aw nit su ngeen ko déggee ci ab palaas moo xam ci am réew bu leen fa dugg yéen ñu duggutoon waaye yéen ñu duggoon bu leen génn moo tax yonentu bi ne at taaxunu ayatu rijsi ibtalallaahu asa wa jalla unaasan min ibaadihi fa ida samictum bihi fala tadxulu alayhi wa ida waqaa bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu hadis la bopp muslim ko génnee mu bokk ci hadis amir ibnu saad yi noonu tamit la benn waay laaj benn góor laaj saad ibnu abi waqaas ci taaxuun mu ne ko usaamatu ibnu saydin mu ne ko man mii maa la koy solo yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam laa dégg mu ne feebaru peste de mbugalam yàlla la mu mu yónnee woon ca banu Israil ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon su ngeen ko déggatee ci am réew wala ci ab tëkk bu leen fa dugg yéen ñu duggutoon waaye yéen ñam fa fekk tamit bu leen génn kon feebar la boo xam ne mbugal la mu yàlla di wàccee mbugal mii nag yàlla da koo wàccee ci àdduna bi yëpp juróomi continent yëpp jot nañ mbugalam yàlla bi tey ak fu ñu mën a nekk tey ci àdduna bi moom daal amul kenn kenn ku ca jotu amul ñëpp ci jot te nag jot ba gaaw lool mu mel ni daal ñoom ñëpp dañ ko jotandoo jot bi daal dafa gaaw lool diñ koy dégg ciim nga ne ah man mi nekk ca tool ya di bay lu ciy sama yoon kanaa kay kooku ki mu gën a conserné mooy commerçant bay tukki siin affaire la waaye man mii nekk sama tool yi di bay lu ciy sama yoon jarga jël jële wéeg koo aw xetam boole koo bureau bi ak këlëm ba xëy ne feebar bi may dégg siin ah man lu cee sama yoon man kat sama nag yi dooy na ma soxla ak këll yéeg yéngu yi sama yoon nekku ca bu ko defee tamit mbokk malee nekk ca géej ga di mool moom tamit ne man lu ciy sama yoon man maa ngi ci samay gaal mbaa nekk ci samay bato di làqarti samay mbaal pour dugg ci biir géej gi man siin du ma fekk si du fekk siin kon man mii lu ci sama yoon sama yoon maanaam nekkut ci ñi la ñëpp kenn ku ci nekk demoon na ba jàppoon ne ka ci ka ci yoonam ka yore daaray alxuraanam jëkk jàng mbaa muy jàngale ne sama yoon newu ci ñu nekk ca école ya buñ xëyee xale ya wër leen ñi leen di jàngal ne ñun tamit di suñu yoon newu ci ndeke daal kenn ku nekk ci àdduna bi ba nga koy dégg siin daal waxuma la sa yoon waaye sa tool a nga sa kër a nga ca sa njaboot a nga ca say mbokk a nga ca sam réew a nga lu néew weer lu lu mat lu matul weer rek feebar bi commencé tasaaroo ci réew mi ñu koy dégg Europe te diggante France di ko dégg ca Italie mu jigi ñu koy dégg ca tabaarakallaahu Espagne ñu ne ah loolu de ba tey ñun suñ yoon ñëwu ci sori nañu lool mu jigéen ñu koy dégg ci Afrique mu ñuy gën di jege si ñëw ba Maroc tabaarakallaahu ñu ne ba tey ñu nag Maroc buñ jëlee avion danañ def ñetti waxtu te man mii demaguma Maroc kii ne man de mosuma faa dem te waajuma kon sama yoon nekkut ci ndeketoo daal feebar ba di law di tasaaroo feebar ba di law di tasaaroo ba mujj tey yegg na ci téeméeri réew ak juróom-ñaar fukki réew ak ñeent cent soixante ci ay réew ci la feebar bi tey di lëmbee mbooleem juróomi continent yi ci àdduna bi yépp feebar ba yegg na fa yegg na Europe yegg na Asie yegg na Afrique yegg na Amérique chimal ak Amérique junub amul benn continent ci continent ci àdduna bi lu dul ba kenn ku ci nekk sédduhu nga ci feebar bi ñenn ñu ne ak seeni kaa boo ko jëlee tabaarakallaahu actuellement itali moo ci ëppale ay kaa moom sax dem na ba xëppale ko siin mi nga xam ne fa la feebar ba soqe koo wa France tamit bokk tegu ca ngay dem timit ca Espagne ñetti réew yi ci Europe kenn ëppul leen ci naga nagu nagu corona wi kenn ëppul leen ci saam ñoo ci xëppale saam yuñ ci seddu ci Europe waaye tamit noonu Europe seddoo ci aaxi tamit seddoo ci Amérique chimal ak jënoob kenn ku ci tamit sédduwu ci Afrique tamit noonu la ci sédduwoo ndax ci dañoo waxoon ne corona bile siin waaye dong ko tax a ndax ñoom dañuy lekk golo dañuy lekk maanaam ay barak dañuy lekk ay sindax dañuy lekk ay gunóor tasaare image yooya ci internet tubaab yi di leen ree ne ñoom li ñuy lekk tax loolu dal leen yàlla weddi ko ne sama sama sama nag wi may séddale wallahi yéen a ngi nii da ngeen ci séddu da nit yi noox ya waxoon daal la noox waxoon nitam ña in tasxaru minna fa inna nasxaru minkum kama tasxaruna wàcc ci ñëw Italie ñoom tamit ñi sédduhu ci France sédduhu ci Espagne sédduhu ci africain yi commencé bàkku ne daal feebar bii daal européen yi rek la yàpp ak maanaam chinois yi ak naar yi gannaaw ba ci suñ mbokk yi fële ci Arabie Saoudite séddoo ñu nekk Égypte ak marocain yi dem a dem tabarakallahu ñooñu ñëpp séddoo fi ñu ne ah feebar bi daal naar yi la yàq ak chinois yi ak tubaab yi waaye mënalu nit ku ñuul dara ñu ne nit ñu ñuul ñi fi ñu dëkkee dafa tàng feebar bi euh, maanaam du dund mënta dund fuy tàng naa bañ fii tàngoor bi mën ngaa dem ba passé quarante quatre degré rek nangam ak nangam ndeketoo waxi caaxaan rek la woon feebar bi jékki-jékki dugg africain yi ba mu dugg africain ñu ne waaye africain du ca dee dee tàngoor bi nekk du ca dee bi may wax ak yow nii fanweeri nit ak ñett ñoo deegum ci Afrique li mu dal ci Afrique nag lim bu limoo limu la bëgguma la koo wax ndax su ma la ko waxoon rek da nga tiit boo ko jëlee tey ci Afrique rek feebar bi dugg na ci ñeent fukki réew ak ñaar la duggagum 42 euh, euh, maanaam réew ci la feebar bi duggagum ci Afrique rek kon ñu ne woon to laal africain euh, feebar bi ñëw ne weddi ko man lu dara nit ñu ñuul ñi ah ñu ne bu leen ko waxati fii loolu moom kenn du ko wedditi fii Sénégal moom ni kaa yuñ toll rek daanaka juróom-ñaar fukk yu teg am nañ ko ah kon nag lañu doon weddi di ko séentu muy lu sori ñu koy miimal suñ bopp jeex na ñëpp ci teg seen bët beneen bi ñu naan waaw moom de màgget yi rek la yàq waaye boo nekkee xale bu góor di dund fu tàng dara la la feebar bi ñëw ah, weddi ko feebar bi ñëw weddi ko ñu ne màgget ñi la yàpp ndax yaramu màgget dafa neexal noppaloo ci feebar mag ñi dañuy wax ne ñett buñ gane ñett dootuñ ñibbee ci dañuy dëkk ndax ngan nga dafay neex ba maanaam ak ñàkk bu gane ab yaafus jërul ñaan lu ci jërul sangoo saafara jërul seetu sëriñ ci dee lay ñàkk ci dee rek ci lay ci dee ci ñàkk lay dee ndax kat ñàkk dafa neex ci yaramu ku yaafus moo tax bu ko gane see day dëkk moo tax daal sa mbokk mii bu yaafusee boole koog ñàkk dara nga ca mënu kenn mënu koo tax a am ci dee lay de ñaareel ba ak réer bu ganesee ku rëy yàlla nattu la yaa ngi réer boole koog rëy ci ci ci réer rek ngay dee ba ba ngay dee doo xam dara ndax loo gis mbañ nga ko kii maa ko mag kii ñoo juddoo ndoor kii nangam mënuma koo laaj lii du ma toroxlul kenn kon doo xam dara ah, waaye tamit feebar bu ganesee màgget dafay dëkk ndax yaramu màgget dafa neex a noppalu ci ab feebar yaramu ku tayal dafa neex a noppalu ci ku ñàkk dafa neex a noppalu ci ñàkk waaye tamit eh, yaramu ku réer boole koog rëy réer dafa neex a ci yaramu ku rëy moo tax ñett yi buñ ganetee ñett yi dañuy dëkk moo tax nag bi feebar bi commencé di dal ñi ne lu ñu am ñu ne am nañ quatre-vingts ans ñii ñu ne am nañ soixante-quinze am nañ soixante ñu ne ah ñu ne màgget yi rek la yàpp waaye xale yi bokkut ci yàlla weddi ko sadd ko koo xam ne liiram ñaari at ci suñu réew mi ñu ne ah lii kat kon liir yi la ak màgget yi ñu demaat ba ci kanam mu sadd ko ko am fanweeri at ak ñett ci digg dooleem nga xam ne sax bu ñuy dugg xal jaana ci aas boobu la ñu yàlla yi delloo ah loo mënoon a am rek foofu ngay dellu inna ansha'naahunna inshaa'an fa ja'alnaahunna abkaaran yonent bi ne da ngeen di nekk ci asab fanweeri at ak ñett yàlla sadd ko feebar ko am loola su ko defee kon as boo gis rek ak raas boo gis ak xeet woo gis ba dugg na leen mu mel ni daal ak déegu yàlla yi séddali nga xam ne xamul génération xamul raasoo xamul waasoo xamul fii laa bokk ak nii laa mel yëpp dee dana ñëw jàpp ci mag ñi léegi-léeg mu jàpp ci xale yi léegi-léeg mu jàpp ci jigéen ñi léegi-léeg mu jàpp ci góor ñi léegi-léeg mu jàpp ci ñu xoomal ñi léegi-léeg mu jàpp ci ñu ñàkk ñi léegi-léeg mu jàpp ci sëriñ yi léegi-léeg mu jàpp ci taalibe yi feebar bi tamit noonu la dal na jigéen jigéen ñëpp xam ne jigéen mënta mucc mu dal góor góor ñëpp xam ne góor mënta mucc mu dal màgget màgget yëpp xam ne mënut ñëw mucc màgget mënut a mucc kon màgget taxut a mu dal waxambaane waxambaane yëpp nekk xam ne nekk waxambaane taxut a maanaam taxut a mu dal liir xale boo xam ne ñu ngi toll ci nàmp ñu xam ne liir yi sax maanaam mënuñ cee mucc kon nag amul benn euh, noonu mu mu mu jëlee génération yi noonu la jëlee tamit xeet yi dal na tubaab tubaab yi xam ne mënut ñëw mucc mu dal sinwaa yi ñoo ko taccu ñoom la tàmbalee ñu ne mënut ñoo mucc mu dal naar yi ñu ne mënut ñoo mucc mu mu mu dal tabaaraka laaw naar gànnaar yi mu tëñ ci mën mën mën ñu xam ne ñoom ci mënut ñoo mucc mu dal puruñ yi mënut ñoo mucc mu dal mitis yi ñu xam ne mënut ñoo mucc mu dal tamit nit ñu ñuul waaye tamit noonu la séddoo ko waatee ci lii yi gaa yi dëkk fu ñu dëkk ci àdduna bi xam ne ñu dafa sedd dal na leen ñu ne dañoo dund ci tàngoor. dal na leen ñeneen ñi ngi dund ci climat boo xam ne bu normal la tàngul seddu ñun tiir mu dal leen kon nag daal moom ak dee daal sorewuñu tabarakallahu xeet wu ne ras wu ne bala yàlla waxoon ci eh, dee daal man nañ ko cee wax ndax moom ca day saw ay na ma takoonu yudrikkumul mawtu walaw kuntum fi burujin mushayyada waaye bu ngeen mën di nekk tamit corona bi fekk leen fa de kon da ngeen a tëju ci seen i néeg sax fu ngeen man di nekk rek bu ko yàlla dogalee ci seen kaw mënatuñ ca dara mu jigi bi muy feebar bi ñëw xel yi daloon nañ ba muy dugg ci réew mi ñu ne ah moom daal étranger yi ñoo ko fi indi ndax noonu la fi njëkk a duggee ñu dem a dem ba ci kanam ñu dul étranger bokk ci réew mi dugal ay milliards ci réew mi di ay moodu moodu yàlla jaarale ko ci ñoom tamit mu am ñum jaaree ci ñoom dugg ci réew léegi nag euh, mu jigi ñooñu ñëw am ñu ñu wàll tubaab yooyu ñëw amaat ñu ñu wàll ba kenn ki ñu jëloon jàpp ko Touba rek maanaam wàll na lu man ñaar fukki nit loolu ministre bi taxaw na wax tamit nga gis tamit ñu dem a dem tey nag ba yegg étape boo xam ne nit a jàng ñuy daw si yaram doomu aadama rek tax a jóg ku la bëgg a noppaloo géej jàng fi mu ne soxlawu ko leen mosuma gis xar mu koy na waxuma la bëy waxuma la ganaar waxuma la gaynde waxuma la eh, maanaam tuuji ganaar yi mu yaram lañu ma yore bakkan dugg loolu Afrique te dugg na ci ñeent fukki réew ak ñaar euh, waaye tamit euh, Afrique te dugg na ci Arabie Saoudi kenn euh, waaye tamit ah, Europe te dugg na ci Espagne kenn pëlewul leen ci moom ak France ak Italie moom moo jël raay ja ba tey actuellement ba may wax ak yow nii tey li deexagum ci corona rek quinze maanaam euh, quinze mille fukki junne ak juróom ci ay nit ñoo ca dee ñi séddani ko nag ci diggante tabaarakallaahu euh, euh, maanaam américain yeeg chimal ak janub ak africain yeeg ak maanaam européen yeeg ak asia yi ñi ñëpp ñoo séddoo fukki maanaam quinze quinze mille yi muy fukki junne ak juróom ci ay nit ñoo deegum actuellement boo jëlee tabaarakallaahu li feebar bi dal man na ñetti téeméeri junné ak fanweer ci ay junne ak juróom-ñeenti junne lii ñoom la feebar bi dalagum ñetti téeméeri junne ak fanweeri junné ak juróom-ñeenti junne ñii ñoom la feebar bi dalagum ci kaw suuf nga xam ne yore nañ ko boo defee nag kon boo jëlee Europe rek am na ci ci biir ñu dee ñu ñu quinze mille quinze mille yooyu ma wax la muy fukki junne ak juróom Europe rek am na ci neuf mille cas yoo xam ne tabaarakallaahu dee nañ ci boo ko jëlee Italie rek actuellement may wax ak yow ah ci dee rek man na cinq mille quatre cent soixante boo jëlee siin da ca dee trois mille deux cent quarante lii lépp tabaarakallaahu ñëw na ci feebar bi ñu seetloo ko mu nekk nag am mbas mu rëy ci àdduna bi daanañ xam mbas mu ñëw am ñu ko tax a jub am ñu ko taxut a jub waaye mbas moo xam ne dafa ñëw matale juróomi continent yi bi àdduna sosoo ba léegi ñu ngi koy dóor a gis muy mbas moo xam ne kenn muccut ci juróomi continent yëpp kenn ku ci nekk seddu nga ci sa cër mu ñëw matale kon mbas mu rëy la donte nag tabaarakallaahu amoon na ay mbas yu ko jiitu woon te yooyu ci ñëw xam ngeen ne amoon na ci jamono yonent yàlla Ibrahim feebaru pest boo xam ne la ca kenn xamul nu mu toll gis nga tamit bi yàlla sampalee nit yi ya mu jox leen taaluuta mu war a xeex ak jaaluuta seen général bi ñu contre ko xeeb ñooña dawoon di génn la ca dee kenn xamul ni mu toll ba yàlla alam tara ilal malay min bani israila min baadi Muusa foofa la fa dee peste la woon kenn xamut ñu mu toll nit yonent yàlla Muusa yi yàlla sa doon la ci ñoom ak benn la ca dee kenn xamut ni ñu toll waaye jamono yonent yàlla am na la ca dee kenn xamul ni ñu toll boo jëlee yonent bi sallallahu alayhi wa avant ñi di ko yónni muy gane ci àdduna peste bu métti ñoo xam ne la ca dee kenn xamut ni mu toll daloon na Makka ci banni Jurhum nga xam ne tey foofa la fa dee rek kenn xamut ni ñu toll benn bis yàlla sadd leen am mboy ak ay sax mu dem ba je xaw leen a jeexal ñoom ñoo ña nekkoon foofa ca Makka méngoo woon Kaaba gi ba benn guddi nu mag juróom-ñett fukki ci ay waxambaane danañ dee waxuma la màgget ya ak ñeneen ña ca dem nañ ba ñu dee sax euh, suul dafay xaw a nekk di lu jafe jafe jafe jafe su ko defee tamit loolu lépp amoon na ca la ca dee kenn xamut ni mu toll moom nga dégg Seydil Haaji Malik di wax ne waqul qusaatu fazu makkata galaban min baadi tasliti narfin fi unufihi te boobu lay junji nga xam la ca dee kenn xamul ni mu toll ñu ne wa qiila al salatallahu ruafa ala amaanaam bal wa qiila fii isnaa i jullihimi loolu ma wax la dellu ci classe zahab da ko ca fekk ci safha soixante ca sarhaba ci nayl maanaam sarhab naylul arab min xilaasi zahab kon perte boobu amoon na ci yonent bi ñëw génn àdduna dëkk ci suuf juróom-ñetti at feebaru peste gane si sahabaam yi ak lenn ci ay na la ca dee parce que kibaaru saxaaba yu bëri ci peste booba lañ dee ña ca dee ci ay jullit matoon na ñaar fukki junne ak juróomi jullit ñaar fukki junne ak juróom ci ay junne ñoo ca dee kon nag feebaru peste lu fi yàgg la tabaarakallaahu lu fi yàgg yàgg yàgg la feebaru peste boobu mooy dox di wër tabaarakallaahu ba ñëw na ci France jile boo seetee mille sept cent vingt ci Marseille benn waay bu ñuy tuddee Gracie Antoine nekkoon nabika nabi navigateur dawal bato moo dugal feebar ba foofa la ca mat na téeméeri junne ci ay nit feebar boobu yaakaar naa ne ñi jàng histoire xam nañ ko boo delloo ci net bi dana la ci wax lu gën a yaat ñi demaat tabaarakallaahu ay côté mille neuf cent feebar timit duggati ci suñu réew mille rawatina Afrique a Afrique ak nit ñu ñuul ñi ñëw na feebar ba bi ñëw ba mille neuf cent mu nekkoon tabaarakallaahu choléra boo xam ne dafay ànd ak di sonal say bët nday wacc foofu li ci dee ci ay sénégalais dee ci tabaarakallaahu ci ay nit ñu ñuul ci Afrique ci suñu Afrique gi lim bu bëree bëree bëree bëree ci dee lu bëree bëree bëree bëri la de histoire boobu yàggul ndax fekk na fi peste boobu suñu maam yu tedd yi fekk na fi xaadimu rasul si Ahmad Bamba feebar bu fekk na fi Seydil Hadji Malick ca la doon demee di ñàkku bu ko defee ñun ñëpp door a nangoo fekk na fi suñu maam yu tedd ya ku mel ni Mawlaay Alxaaji Abdallahi nag loolu li ci dee maanaam ni mu toll mu dem ba ci mille neuf cent foofu timit tabaarakallaahu grippe espagnol bi ñu doon wax dugg ci suñu réew mi dugg ci réew yi Afrique yi dugg ci àdduna bi booba li ci dee ci Afrique gu ñuul gi rek mat na ñaari million ci ay nit su ko defee ba ñu demee ba deux mille quatre jëm ba deux mille six choléra dugg ci réew mi la mu ca rey kenn xamut ñu mu yàlla moomu andi woon feebar yii yile ma waxoon la ci mille sept cent vingt ko ci mille cent vingt am na peste bu rëy bu fi amoon indiwaat ko ci mille neuf cent vingt moom moomu tamit moo ko indiwaat ci euh, deux mille vingt mu mel ni par téeméeri at yu nekk daal feebaru peste bu rëy dana dal ci kaw àdduna bi Euh, waaye tamit moom mi ko andi woon ci mille neuf cent douze mu dem a dem ba mille cent quatorze mu door a indi ay jeexital di rey ñu bëri ci Afrique bu ñuul jile rawat na ci suñu réew bi waaye tamit indiwaat benn euh, euh, grippe espagnole bi ci mille neuf cent dix-neuf jëpp mille ba boobu li ci dee mat na ñaari million ci ay nit indiwaat choléra bi deux mille quatre jëm ba 2006 yàlla moomu nag moo ñu indilaat corona bi tamit tabaarakallaahu ci 2020 bi la waaye nag boo ko toppee kon wax naa la feebar yee jaar-jaar yi mu séq wu ba yegg léegi nag dama lay wax rek li nga xam ne moo ko sabab ah li ko sabab tamit duwul sama waxi bopp waaye waxi sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama la yonantu bee wax ne daal juróom juróom la ko yàlla y fayee ko juróom a ngi nii ku ko lebal yàlla yàlla fay la juróom ba ko yonantu bi waxee saxaaba yi ne ko juróom yi yàlla y fayee juróom mooy lam yonantu bi ne aw xeer aw nit duñu firi kóllëre buñ fas ak seen borom ci war koo jaamu ci war koo wéetal ni firi kóllëre ga ci di ko bokkaale firi kóllëre ga di ko moy firi kóllëre ga féttéerlu bañ a jëfandikoo ay ndigalam féttéerlu ci nuur ci ay tereem lu dul ba yàlla dana xirtal ci seen kaw seen ab noon tey nag jullit ñi ngi dul jullit ñooy seeni noon lu ne ñi ngi koy dalal ñi ngi koy dalal ci seen kaw li xewoon éti bu yàggul yéen a ngi koy gis ay jullit ñi leen di mbugal li xew siin ñooña ña fa nekkoon diggam yàlla ñii ñu jël xeeti mbugal mu nekk teg ko ci seen i kaw ñi fi nekk waroon leen a dimbale yàlla jox leen doole jox leen poids ñu xool intérêt bi leen siin amal kenn ñu mu caa yëkkati kàddoom wax ca seetaan gu métti googa loola yóbboo nañu tey yàlla xirtal tey suñuy noon yi ñu dal ci suñ kaw te mënuñu jige dara tey suñuy noon yi ñu hili ñuy wan yoon wi ñuy war a teg suñuy tànk ñoo ñuy wax ci ñun la ñuy def luñ bëgg a def bu doonte dëppoog nag sariya buñ ci addoo ñu ragal leen bàyyi ko kon nag loolu duma ko firi yéen a ma ko gën a xam amul kenn kuy firi koo lëre gi dox sa digganteeg sa borom ci war koo wéetal ak firi koo lëre gi dox sa digganteeg sa morom lu dul ba yàlla satt na saf noon ci sa kaw yonum too ko wax mu ne xamsun bi xamsin qiila yaa rasulallahi wa maa xamsun bi xamsin qaala ma naqada qawmun al ahda illa salatallahu alayhim aduwahum muy benn amul benn xeet wala wenn nit wuy firi kóllëreeg yàlla mbaa ñuy firi kóllëreeg seen morom lu dul ba yàlla dana sadd seen noon ci seen kaw te jamono ji firi kóllëre dafa mel ni dafa xew koo fas kóllëre nañ def mu génn ca bala ja koo fas ak kóllëre nañ nañ nañ bàyyi mu génn ca dugal la boole ko tamit di la ree boole ko tamit di la jëw di yàq sa gaal koo ku la jàppale woon ba nga mën a gudd dara boo mënee dara firi kóllëre rek mooy sa première noon ki la jàppale woon di la jàngal ba nga xam soo xamee yaay nekk première noonam def ay way di ko xam laa nga koy gaaral moom daal ku ñu waxoon demal seeti say noon demal nga seeti rek ñi nga xamaloon njëriñ boo leen dajalee rek ci benn néeg ndéem dañ fa xaj wala ci génn kër ndéem dañ fa xaj wala ci dëkk ñooñu ñooy say ñooñu ñooñu ñooy say noonu jamono jii daal kuñ ne defal seeti say noonu seetal ñi nga xamaloon teraanga rek koo séq ak teraanga soon dina la ko fayee lu baax mu soppi teraanga ja ak nooneel firi kóllëre firi kóllëre gi tax nag kenn ku ne tey sa nooni bopp doy na la soxla waxuma a noon yi nga bokk ak sa mbokk yi kon nag loolu mooy bu njëkk ba mu ne bu ñaareel ba amul wenn xeet wudul attehoo li yàlla wàccee muy téeréem bii ne alkuraan te ko wàccee mooy ki xam li passé xam li teew xam li ñëw xam li mën a régler problème mu doomu aadama ci wàllu social am xam li ko mën a régler ci wàllu santé kam li ko war a li ko mën a régler ci wàllu justice am waaye yooyu yëpp ñu ne ko fa ñukk jël yeneen i ay article yoo xam ne ay nit ko xalaat yoo xam ne mën nañoo jiw xam nga bañ koo xalaat ban xaal la leen fekk sax ñu dund ko tasaare ko nit ñi di ca xattewoo doonte le ay réew yi jullit yàlla yonent bi ne nag wa ma xakamu bi gayri ma ansalallah illa fasa fihimul faqra saa yu ma wàccee sama constitution bi ne na ngeen ko sukkandiku di alquran ngeen xattewu ca ngeen lànk wan ko gannaaw la ma leen di fayee mooy fadd ci yéen ak ñàkk xam ngeen ne ñëpp a ñàkk ci ci jamono dara jeexul mais dara doyul koo gën a yéem ñi koy limali ay milliards wallahi boo wéeteeg moom mu wax la boppam moo la ëpp problème moom daal ni jëmm yi toll ku la ëpp jëmm ëpp la wati foofu la to foofu la ay problème kon nag kenn xamul dara ci ngay jiñ foo ne koo xam dara la waat naa ci yàlla boo wéeteeg moom da ngay yëg ne xamul dara xaalisu siifur rek moo fa nekk siifur bu ma defee lii def lii def lii waaye danga nga fa fi boo ko gëddoon tey laaj ko borom milliardaire bi nga gëdd ko mën ta génne ñaari million borom millionnaire bi boo ko gëddee mën ta génne ñaar fukki junne wala ñaari ñaari wala man wala wala ñeent fukki junne ki ñu jàpp ne boromi junne lañ boo ko bettee mën ta jékki-jékki joxe deux mille francs lu dul mu waajaat ko koo ci wax mu ne may ma rek ba weer wi dee nangam nangam fekk yow balaa weer wee dee sax yow dee bu yàgg wala moom ma balaa weer waa dee fekk dee kon nag xaalisu siibur ngeen amee waaye xaalis liquide danaa ko jëlee ci yéen bu ngeen demee ba li ma fi wàccee nanguwu leen koo àtte hoo ma sadd ci yéen ak ñàkk ñëpp a ñàkk réew yëpp rawatina Afrique lebi ay bor di fay rek di takkale ay bor yoo xam ne man nga koo fay ñaar fukki xat ay bor yoo si ñu war dem fanweeri xat naga naka ñooñu borom entreprise yi leb fii banque bi ñu dugal leen ci lii bu ñu suulee bukki sulli bukki rek bu bopp ba feeñee rek ñu sulliwaat ñu suulaat beneen bu ñu nee ba ci kanam tànk yee feeñ ñu suulaat beneen ci loolu ngay ne ci loolu ngay ne ba dee jamaa maalan waxada dëngoo rek yaay boo toogee sa chiffre ay milliardaire nga ci chiffre waaye milliardaire ci liquide nekk na loo xam ne lu jafe-jafe la kon la yonent tu waxoon ñoo ko def moo tax yàlla fayee ñu loola mu ne ba ca tegu nag gën caa raglu ak njaalo du feeñ ci aw xeer ci aw nit lu dul ma man yàlla danaa bëri dee ci ñoom xam ngeen ne njaalo ni mu bëree ci ji jamono ci jamono jaahiliya ba yonantu bi ñëwagut sax jamono yonantu ya ñu paase woon fi njaalo toll tey musut faa hegg ba àdduna sosoo ba léegi xale bu juddoogut fa fukki at ñeent ma ngay njaalo di góor mbaa muy jigéen tabaarakallaahu ay mag ña ngay njaalo ay kilifa ña njaalo ku la ëpp garaat ëpp la daraja moo la gën a ñeme mooy yàlla ci jigéen moo tax ci jamono góor góor ñu bëri ku leen taxawaloon ne yéen jigéen ñi ñëw leen ngeen seede leen yéen ay tax ñi mat ilimaan na ko suñ mbokki pëlee daan defee yéen ay tax ñi man njiit ala ku leyaal eh, dana bëri kuñ jiital nga ne woon ca kanam dellu ca gannaaw kon nag yonentu nee na wa ma zaharati alfaxishatu fihim illa fasha fihim almawt loolu war nag yaakaar naa ci jamono déegi ni mu bëree déegi nag bëri gi ko waral yépp mooy njaaloo gu bëri rek nu njaalo gën a bëree dee a bëri moo demee ci hôpitaux yi la fay dee nga jëm ci oto yi accident yi la cay dee nga dem ci maanaam ñii rayante ci ci ci ci ay paaka ñii rayante ci ay jaasi ñii rayante ci ay fetal la cay dee kenn xam ni mu toll ñii toog rek dox ba ci kanam ñi dee ak ñeneen ñi nga xam ne problème lañ yal ñaanu ko at suñ ko ñi dee kenn xamut mu ñu toll te benn waaye da doon ruuj toolam ba am néew bu ko fa romb ñu koy suuli ba ca déwénaat sa muy ruujaat ñu romb kot beneen ñiw mu ne waa ñii seen dee gi na diggante eh, daaw ren rek am ku dee amaat ku dee bu njëkk ba daa nga toog lu yàgg bu nit deexee bala nga koo déggati da nga dem ba fàtte booba sax bu ñuy suul amul benn xale bu ñemee dem ca armeel ya waaye léegi deex a bëri ba xale yi ñoo ko gën a ñeme mag ñi